sadi lisaani nawi janaani safi amaani wasit baraayi bisimilah barki borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi baaxoo di seetaan seen télévision Majmahun Nurayni TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital nuyoo bi si turu xalif général des Mourides di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké sa borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér di nuyu ki nga xamante ne mooy xalif général des Baye Fall di sëñ di Fall moom sëñ Modou Mbenda sa borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér waaye itam di ñaanal ki nga xamante ne moo nekkaloon Serigne Touba fii si Thiès di Serigne Saliou Touré sa borom ko ay leer di nuyu ki nga xamante ne mooy jëriñu mbooloom Majmahun Nurayni di fédération bi nga xamante ne moo lëkkale mbooloom élèves ak étudiants fii si Thiès soo leen gisee mbooloo mi sama ginnaaw ngeen war a xamante ne li ñu doon waaj boobu ba tey ziar bi nga xamante ne fédération bi yàgg na ko amal si kanamu Serigne Saliou Touré xam naa dañuy daal di ànd ak yéen nag dëgtal leen na fi jot a bàyyeekoo laataa ñuy àgg si baas bi di teewlu njàng mi وحال من دوني سهل وأوان شط بك الدار وحال من دوني شغل وأوار nañ ko waxee sànq rek ñu ngi taxaw benn jëwriñ si soxna si accueil bi xam naa dañ koy daal di dégg suñu micro rek mu daal ñuy wax ana naka la ñu naka la ñu waajale ziar euh, mobilisation bi moom macha allah ci doon xaar yëpp gis nañ ko si ak tamit euh, port du blanc bi tamit appliqué nañ ko macha allah bu mu lépp taw feex sant nañ ñu ngi lay jaajëfal joorin comme niñ ko àndee ak yéen boobu ba tey mu mel ni ñu ngi taxaw si aussi joorin bi nga xamante ni mooy cellule Majmahun Nurayni bi jugee foofu si Dakar ak euh, Jaalibatul Marahib xam naa dañ leen di daal di bàyyi ñu nuyoo rek bisimilah joorin asalaamaaleykum mbokk taalibe ñu ngi siyaaraat ñëpp du lu liggéey bu baax a baax euh, jóge ba Dakar bokku daara jaalibatu maraaxib nekk jóorin bi ñoo ànd ak élément yëpp ñoom sëñ Moustapha ba nga xamante ne moo topp si man si euh, fédération mag nooree ni léegi nag ñun ñoo ñëwoon si liggéey bi nga xamante ne siyaar bi jagleel sëñ Saliou Touré mu nekk cellule Dakar euh, ñi jiite ko nag ñun ñu féete côté café ji li jëm si mbirum café bi ak was bi cellule dakaar ñoo ko saso fa yéene ànd ak euh, ñëpp si liggéey bi loolu moo waral suñu teewaay tey. ginnaaw jëwriñ bi wax na lu ëpp ci kàddu yi xam naa dañuy daal di bàyyi ki si des rek mu am lu si ci yokku ci tënk. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk taalibe yëpp waaw comme ni ko jëwriñ de waxee rek di jëwriñu jaalibatu maraaxib bu Touba Liberté ba noppi itam di jëwriñu fédération Majmahun Nurayni bu Touba bu Touba Liberté itam ma topp ci moom man Moustapha Ba waaw daanaka nag. comme ni ngeen ko gisee rek dañ fay teew ngir siyaar bi nga xamante ne day daal am at bu ne muy siyaaru Serigne yu Touré di góor yàlla boobu nga xamante ne la mu defar ci ay ndaw kenn xamul lu mu toll la mu liggéey si lislaam macha allah defar ko ci ay murit tey jii nii moom moo tax ñu teew fii nii daanaka depuis démb ñu ngi fi ngir rek li nga xamante ne mooy ñoŋal liggéey bi ñu nag ñu féetaluñ ci wàllum café boobu ba léegi nag ñu ngi ci daanaka suba jotoon nañu génnee café gi léegi ñu ngi waajal ak yeneen ak yeneen ànd ko mbokk taal bi nga xamante ni jot nañ jóge Dakar ak ñi nga xamante ni ñoo nekk fii si Thiès. jërë ngeen jëf joorin ci kàddu yi nga xamante ne leeral yi nga xamante ne ni matale ngeen ko. comme niñ leen ko doon waxee depuis si suba ba tey ñu ngi fii tey fekk si fi waa culture xam naa dañuy daal di am kontante rek dégg soxna soxna si suñu micro mu daal ñuy wax ana naka la dundee. ziar bi ak wàllum durus mi li aju si si wàll si côté soxna yi bisimilah joore bisimilah soxna bi rek ñooy bi moom depuis deux heures ba léegi ñu ngi jàmbaar waaye booy xool moo tax heure boobu la tourisme bi gën a gaaw ñëpp di am mboolem si doy ñu jaameloon si Saliou Touré te xam leen te jaxasoo ak moom mu ak ñu ñu ñi dem ak a dikk ndax mos la wax de ma sama kër gi koy nas ren bi déwén na la wóor yaa ngi ci dëkk nga xamante ni ndongo yi sëriñ bi lañ mos la wax ni defar maanaam defar nit naa la ko daa ko sax moom si même ko wax ndax du ni ki koy def ndimbal la waaye du lii mooy yàlla ci sëriñ ndimbal dëgg moom si boole ñoo ngi santaat santaat baax di ñaan sëriñ Saliou Touré saa borom yokk ay leeram ba tey ñu ngi wéyal li nga xamante ne moo aji si ziar bi kon xam naa dañuy bàyyi itam tamit beneen soxna rek daal di wax ginnaaw bu muy nuyoowee ba pare mu daan ñuy wax ana ban yëg ban mbégte la la dund si ziar bi tey bisimilah. bismillah aawuzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiiqi illa billah asalaamaaleykum wa rahmatullah barkeb Sidi Ibrahim maa ngi leen ziar soxna Ndeye xanaa di am kontaan rek comme niñ koy defee chaque année rek muy gën a mag comme li ñuy wax rek mbiri sëñ Touba moom amul tànk yi ginnaaw tànk kanam rek la am kontaan nañ bu baax baax a baax di ñaan suñu borom kàttanal ñu ñu koy fekkee ay ati ati ati mbëgte la nga ci am xol bu sedd xol bu fees man nag sama doom mooy mooy programme programme man ko dama ci dama si dama si bokk di jox sama addiya di ñëw saa bu nu programme yi ma ñëw ndax sëñ bu kenn defalul kenn sa ku ne sa bopp ngay defal yokkute la moom géej la ni nga si duggee rek ni nga si tooyee sant yàlla nag di ñaan gu wér ko fekk ay ati yaat muy gone yi yi di ñëpp yal na sëñ bi dimbali yal na sëñ bi teeru na te seeg tafri sëñ bi maa ngi sant yàlla bu baax am mu fekk di ñëw kontaan naa وحال من دوني سهل وأوان nañ nga wax ñu naka nga dundee mbégte mu ziar bi tey jii bisimilah. xanaa bég rek salaamaaleykum wa rahmatulah maa leen di ziar yéen mbooloo mi fi teew ñëpp di wax ne dañoo bég sax ba mënuñoo wax ak suñ Tuubaa ndax day wane ne maanaam mboolem lépp luñ doon def liggéey buñ doon def tey jii la gën a liggéey boobu gën a feddale maanaam ci taxawaay ak kawe ku fi doon ñëw démb ak ku ñëw tey xam nga ni changement bu rëy am na muy wane ne kon. tey jii nii mbooloo mi dañoo fas yéenee dox moo xam yemale nekk sëñ bi ak ñàkk fee nekkam jàpp ni sëñ Saliou Touré jógu fi ndax du ko fi jóg ak sëñ ah, ngi santaat bu baax ginnaaw bi ñu fi suñu borom bàyyee ñu amalaat li nga xam ne moo di ziar ndongo yi di gën a gën a santaat sëñ Touba rek ndax xam nañ ni tey jii nii xol yëpp tooy na ndax eh, yaakaaroon nañ ni buñ gisatul sëñ bi xëy na mbir yi dina taxaw wala yooyu noonu waaye ñu ngi santaat sëñ Touba bu baax baax a baax a baax ginnaaw bi ñu jàppalee mbir yi te mu leer ñu lii nga xam ne moom la ñuy amal ngërëmal sëñ Touba lañ ci am kon loolu moom mbégte muy sax la ma faaw. dem ziar bi noo ko dundee. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen di santaat bu baax a baax di santaat sëñ Touba mi xamante ne moom moo waral ndaje tey bii ñu ciy amaat mbégte bu baax a baax a baax ci ndaje gi nga xamante ne def nañ ko fii tey di ñaanal suñu borom tamit di jàpp koo fee tey at yu bëree bëri ñaanal suñu Saliou Diouré suñu borom yokk ay leeram dégg suñu micro rek ñu wax mbégte mi ndax boobu ba tey ñu ngi reetaan mbégte mi ziar mi bisimilah salaamaaleykum ñu ngi leen di di leen def seen wàccuwaay di leen wax ne ñu ngi sant borom Touba bu baax di sant Serigne Touba Serigne Saliou bu baax ci liggéey bu rafet bi mu amal ba tey ji ziar bi dañuy jërëjëf jaajëfal ba tey ñu amaat fi beneen soxna boo amee loo si yokk mbégte mi noo ko dundee tey. ah ñoom ziar ñëpp xanaa liggéey bi rafet na trop trop trop ñu si sant yàlla bu baax bi ñu amee suñu Saliou Touré. aju si wàllum xewlu yi ñoom ñoo ko doon préparé kon xam naa dama koy dégg suñu rek mu wax ñu euh, mbégte mi mbégte mi ziar bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi ziar euh, ñëpp di wax ne moom mbégte mi moom fu ko waay dakk rek romb na ko ndax liñ bëggoon daal am nañ ko ci bés bi muy jàll gi ñu bëggoon ku ne dégg na kilifa yi wax yëpp kenn ku ci nekk nee na bés bi nam daan demee tey ji dafa gën a fawxa kon nag sant nañ ci yàlla bu baax a baax eh, di wax rek chaque année rek ziar bi yàlla na gën a eh, fawxa rek ndax niñ ko bëggee rek mu ne jàll rek waaw ñu am gënëma gënëma sëriñ bi di ñaanal si Saliou Touré mi nga xamante moom lañ doon defal ziar bi nii ak ndongay yàlla gën a eh, ay ay leeram daal defe naa lool rek lañ koy ñaanal kontaan nañ ci kontaan nañ bu baax nañ ci kontaan nañ bu wér a wér Saliou Fall day mel ni nag mbooloo mi nu mu mel rek ndax aw doxinam la ñuy xool rek di waa presse day mel ni liggéey bi ñu def am na solo lool xanaa rek niñ koy waxee chaque jour rek xanaa ñuy gën a yaatal di partager ndax mbokk taalibe yëpp rek waaw ñu man di jot si information xam ne mu ngi am si daara ji jërëjëf kenn ku kenn koo ne bokk si membre presse ah, xam naa dañ koy bàyyi rek moom itam mu wax ban yëg-yëg la am si ziar bi ak naka la ko waajalee woon boobu ba tey jii nii nii bismillah waaw jërëjëf soxna Ndeye maa ngi leen di bu baax a a baax di leen jaajëfal si kàddu bi di wax ni euh, métti na lool wante comme li tubaab di wax on l'a fait tey ziar nañ sëñ bi donte nekk fii mais ziar nañ ko def nañ lépp lu ñu mën ngir ziar bi mën a international ku nekk si Sénégal foo mënti nekk si àdduna ak foo mën nekk Sénégal da ngay mën a si daan bi en direct sur YouTube jërëjëf mbokk yi ñu doon bàyyi xel si suba ba léegi muy si réew mi di si bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax ne amuñu seen fay si ngeen di dooleel seen bi waaye di ñaanal ki nga xamante ni di Serigne Saliou gën koo yokk ay leer euh, di gërëm équipe bu technique bi yëpp di leen ñaan itam bu leen fàtte aimé suñu vidéo abonné ko ak partage kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah